fekkente ni da lekk rek ba noppi daal di tëdd na ko bàyyi parce que loolu mën na la jox cancer da war a xam ne lekk yi ngay lekk dafay wàcc sa biir estomac te estomac dafa nekk benn poche boo xamante ni fa la lekk yëpp di dajaloo léegi estomac si wala dafay lëkkaloo ba noppi di communiquer ak benn raakool bi nga xamante ni fa lekk di jaar ñu koy oesophage léegi diggante estomac bi ak racole boobu dafa am benn buntu bu dox seen diggante léegi buntu boobu bu fekkente ne da ngay lekk dafay ubbeeku bu fekkente ne da nga lekk ba noppi dafay daal di tëju léegi fekkente ne nga lekk ba sa biir fees nag nga daal di tëdd pression bi nekk sa biir estomac bi doole léegi bu ko defee buntu bi dafay daal di ubbeeku frappé bu ko defee nag lekk yi jóge si biir estomac bi ànd ak acide bi daal di yéegaat si li nga xamante ni mooy sa oesophage léegi yéeg boobu muy yéeg nag moom la ñuy oowee reflux wala nga koy wax daf may xenni ñi léegi bu fekkente ni dalay yàgg di dal buntu bi mën a dem ba yàqu léegi yàqu boobu muy yàqu moo waral ngay toog rek di am ay reflux di am ay reflux te reflux yooyu ngay am nag acide bi nga xamante ni moo nekk si biir biir bi dafay ñëw di yéegaale di lakkaale oesophage bi léegi lakk-lakk yooyu nag mooy dem ba indi ay métit indi ay problème yi nga xamante ni da lay jox oesophage de Barrett léegi oesophage de Barrett boobu mën na la jox cancer waaye du yem foofu kese mën na la jox ay yeneen feebar yu dul jeex donc dans ce cas bon bon bon bon deux heures temps avant ngaa na fekk nga lekk ba noppi fekk mu nekk lekk bu oyof ba noppi nga toog di digérer nga doxantuwaale tuuti su mënee nekk aussi tamit nga yësa si moom pour mën a digérer bu ko defee doo am benn problème